Salut les amis de eSport eSportivier la Barbe Show. Merci encore Gaël de la confiance renouvelée. Merci de vous des likes. Merci de vous des abonnés. Merci également du bail ici, des commentaires. Wa diaspora bi rukk rukaari gox goxaari marchand ambulant yeeg yëpp képp kuy jaay rek képp loo mënti nekk yàlla na suñu borom jàppal la ñi nek ci loolu hôpital ci kër yi tëdd également yalla na suñu borom fëgg seen bop ñoo rek jàmm ñi nek ci kasso yi nga xam aussi erreur judiciaire gi ñu deful mo leen fa yobbu suñu borom génn leen fa delluwaat leen seen njaboot ñi de dëddu àdduna suñu borom xale na jëne fi daw si te yéexee ñu on avance ensemble dans la magie de Barbe Show et eSport TV l'actualité en continu Gaël actuel ñu fas yéene waxtaanee kii di Kalidou Koulibaly mi daal di ñëw wax ci amna na lu ci wax jëm ci li nga xamné donc mom ak Sadio Mané lépp ñu fas ci jox leen ay détails gaay légui lay doon mais bu jeexee jeexee dem leen ci Baba Show un vidéo bi ñu duggal légui ci wax ci Sadio Mané mais également Vinicius Junior ak yeneen actualité concernant le Barça le Real et tout mais insolite bi nak justement wa Real ñi nga xamné ñoo dëkk autour du Santiago Bernabéu ñoo porter plainte Real Madrid parce que nee euh, li di pollution sonore manam bruit bi ñu fay def da leen di sonal ba tax ñu daal di plainte <laughs> ñi nga xamné donc stade bi di Santiago Bernabéu ki nak également di donc Fiorentino Pérez moom actuellement gaay média espagnol yi nak notamment on révélo ne nañ au partir du mois de janvier ñom ñi ngi xol na lañ fexe ba recruter ay défenseur wala défenseur central bo xam day ñëw combler li nga xam donc blessure yi nga xam ne am ci équipe B mais aussi Fiorentino Perez qui serait également un peu oh, donc voilà énervé par rapport à li nga xam ne dit talent midi qui Arda Güler qui également qui dit euh, donc euh, Endrick nga xam amuñu temps de jeu nga ça. actuellement waa Brésil nee duñ ko convoqué parce qu'il n'est pas en forme amul temps de jeu conséquent On nak di xawa a freiner carrière euh, mais le Real Madrid notamment Carlo Ancelotti qui confirme aujourd'hui hein, l'importance de Rodrigo Rodrigo c'est un joueur à part un joueur spécial techniquement il est hyper bon il est au-dessus de la mêlée mais aussi qui peut beaucoup apporté donc moo tax daal ñu fi ne nii bàyyi Rodrigo mu dem xalaatuñu ko. Qui nak di ki nga xam moy donc Martinelli Gabriel Martinelli le joueur de d'Arsenal dañ ko laaj na ko ñan défenseur ñu la gëna sonal ah, ñu la gëna intimider ci Premier League mu ne ñaar lañ kenn ki nak moy donc ki di ah, euh, Konaté de euh, Liverpool mais également kenen ki kenn dootu ko waxati moy l'arrière latéral donc euh, de Manchester City qui nak également di donc compagnie mom dal nee na dégg na da bu ñu ñaan Alphonso Davies il n'est pas en forme nee lool loolu gisul loolu pour l'instant Alphonso Davies Alphonso Davies hyper en forme maintenant am marge de progression te lool moko da di qui n'a dit Arteta. Arteta, l'entraîneur le, d'Arsenal, qui est revenu sur le cas de Kiamé, donc Thomas Partey, Fanel attaque Benlam, 31 ans, donc c'est un joueur qui peut encore beaucoup apporter. Miguinek actuellement dit revenir en forme comme Nimkodefon, donc actuellement il ne pense pas à le vendre. Qui n'a également dit Gary Neville, Mondala Warna, donc euh, Lidi Ballon d'Or. C'est un manque de respect notoire envers qui de Rodri, comportement bien Real. Ce c'est pas un comportement digne euh, donc d'une équipe comme le Real Madrid. Rodri, il me comme ni ko Real mérité pendant ce temps le président de Santos l'ancien club de Neymar Mondal, daal def na révélation Neymar serait de retour l'année à partir du mois de juin 2025 du côté de Santos D'ailleurs aussi le dal daal daal mon le patron de Santos Kalidou Rock Koulibaly le rock de la défense sénégalaise monaco nag donc Nicolas Jackson nee Nicolas Jackson c'est le futur du Sénégal Mon na def sax lu raw li Sadio Mané def ba def ko également wala sax égalé ko nee na chaque jour que le Sénégal donc à lui de faire ses preuves comme nous mu koy du côté de Chelsea Nicolas Jackson mooy ki nga yori équipe nationale du Sénégal parce que c'est un joueur qui a le potentiel et qui n'est pas complexé et qui a la tête sur les épaules l'enfant de la Casamance l'enfant également du Sénégal le joueur des Blues de Chelsea Nicolas Jackson les amis on se donne rendez-vous tout de suite sur Baba Show l'actualité en contenu sur eSport TV bu Fatena également l'émission mu le 17 novembre ñëw na jëli leen seen i carte électeurs yi dem voté ci en masse dem voté en masse parce que ëllëgu Sénégal la ñun sax yàlla na yéex bu ñu ko dul fekkee suñu njaboot war ci mën a bénéficier wu ndax dëgg mooy njëkk dëgg mooy mujj su baaxee cee la boole suñu dëgg ay jaa